mbokk yi kuréel bi ngeen xamante ne nii am na cër bu yaatu ci làmb ji ñu tuddee ko association des sages de la lutte du Sénégal ñoo woote nag bés bu mag ci wàllu làmb mu war a yemook dimanche 15 mai 2022 ci stadium Iba Mar Diop drapeau du ministre des sports monsieur Matar Ba les sages daal ne tegal nañu xale yi 5 millions de francs CFA ci kaw table bi ci trois catégories yu bokkul waaye yemuñu ci dañu leen indil nag dio de choc bi Momo Ngom ak Mbayang lum billet amateur yi 3000 francs la loge 5000 francs CFA kon mbokk yi mi ngi noonu ginnaaw bi ñu jógewee ci drapeau du chef de l'État ñu war koo raxasaat fii ci Ndakaaru ak le drapeau du ministre Matar Ba ñu war cee ànd nag ak les sages de la lutte du Sénégal bu récupéré parce que dañu war a jouer final te moom jigéen bu Kaolack moo war a tase donc seen ñaari dañuy may Moussa Diop bu noppaliku après mu noppaliku moom Ngagne Sène bon Mohamed ñoo ngi nag ah ak le champion le géant du Baol ni ñu koy waxee nag moom nag normalement démb la fi a nekk dalal invité yi dalal amateurs yi dalal dalal dalal dalal askan wi yëpp waaye nag ah tey la ñëw Tafatine le géant maa ngi leen nuyu di la ziar yëngal nga nag ba ñàkk macha allah maa ngi lay bëggee. Bokar maa lay fay mais c'est normal loolu moo war a am tey stade bi neex na xumb na vraiment fii du suma stade di suma dëkk Diourbel ma yendu fi tey di sant océan docteur Diop nga xam ne këram lañu àndal ak booy yi mu àndal nii quoi franchement tey en tant que nga euh, acteur u làmb tey kenn mënul wax làmb tey te waxul Moustapha Tine tey Jurbel sa dëkk di tëgg euh, nga ñëw yëngal ban sentiment ngay moo lay animé bi nga gisee stade bi mel nii. waaw damay fàttali sama combat contre Bombardier face to face bi fii la woon. fii la woon deux heures du matin bi ma ko naan tax si rek tey bi ma duggee. te foofu la ma yóbbuwaat quoi mais sant yàlla ya euh, nekk facteur de développement depuis trois jours tey mën nañ tey hôtel fees nañ auberge fees nañ dawalkat yi jakartaay sax gis nañ seen bopp si li nga xamante ne lamb normal ma profité wax ci parce que man doomu Bawol la wax ci luy dëkk bi kanam su su Jurbel may wax ne politiciens yi fi dekk ngelawaay nañu gën a góorgóorlu fii ci dëkk bi parce que booy xool Jurbel bee rek la am amul géej amul yenn yi kon lu mel nii bu ñu ko fi defee vraiment ay nit ñoo doon gis Dakar ay ministre et tout ñëw teew fii ñu def lu dul rafetlu ko quoi wax dëgg yàlla di am euh, mbégte bu baax franchement. Moustapha Tine nag si lan la nekk parce que depuis loolu gars yi def combinaison Moustapha Tine Eumeu Sène Tapha Tine pourquoi la pourquoi pas la revanche contre Ama Baldé Tapha Tine sax Gris Bordeaux man dama jàpp ne lu jaadu la parce que euh, du si aadama du si awa nit ko nuñ ko mën a waxee quoi entre guillemets. combat yëpp a jaadu pour man man li may wax rek adversaire moom maa ko ci làmb ji waaw di nuyu ak papa xam ngeen leen nga xam ne ñoo ma yor très longtemps yàgg na di liggéey ak man ak képp ku a def dara ngir Tapha Tine maa ngi lay gërëm di la sant xam nga di wax ne am naa mbégte ci yow tey di sant aussi ñi ci stade bi di wax ne am naa mbégte tey kontaan naa ci boobu moom dafa mel sax moo la waaw ama seen ñëw na fi léegi ànd nañu bakku c'est bien bon ma xam nga ñëw ànd ak moom bakku bien vrai que du ma fi ne di ko talal ay loxo et tout sénégalais yi xam nañ man xam naa promoteurs yi xam nañ donc kon c'est pas la peine xamum ma nekk fii tey di talal ay loxo ama seen yu kenn xamul lam la nag parce que mu bëreeg moom dafa jot te dafa ñor comme li may wax ko waaye te man pare naa pour loolu waaye. kon tey daal mu ne ne daal euh, li si takk du sa côté pour mu leer. non wax dëgg yàlla xam nga euh, comme li may wax rek comme ba du yàqoo ci man waaw a chaque fois dama koy wax dem leen ngeen waxtaan ak el ku mu mën doona ah. yeah bu paree man pare naa ko ah. di la invité Jaxaw Sine le 21 incha allah rabbi Sargal Badara Ndiaye nekk premier vice président OSTA Sargal Badara Ndiaye nekk le régisseur des bourses Sargal Badara Ndiaye nekk maire de Thiaré Ndialgui waaye nag di si nag décoré day muy un grand champion muy suñu père suñu xarit père Tombé Sène yaakaar naa ne bés boobu moom waa soxla nañ teewaayu Tapha Jaxaw Sine le 21 incha allah rabbi a père Tombé moom sama père la sama papa la mun naa suma staff lay lay lay doon quoi kon kooku bu demee boo koy décorer man dama ciy sawar daal wax dëgg yàlla. mu mel ni yéen ñaar nag am ngeen ay relation yu particulière. non suma suma père la suma xarit la xam nga moom ak suma papa la woon depuis Igri séeréer kon euh, dama koy jaajëfal daal di ko nuyu te xam ne ñu koy waaj bés ba te xam ne suñu bés la quoi. waa Jaxaw Siin loolu di wax le 21 incha allah. ayca waa Jaxaw Siin xaar ñu le 21 incha allah ñu ñëw ñu ñëw. a thank you very much maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam way yàlla jàmm ay ca noonu la demee euh, kooku nekkoon Moustapha Tine le géant di Bawol ñu koy nuyuwaat di ko bëgg waat de passage waaye rek ni ngeen ko xamee rek wala ni ngeen ko mbokk yi kuréel bi ngeen xamante ne nii am na cër bu yaatu ci làmb ji ñu tuddee ko association des sages de la lutte du Sénégal ñoo woote nag bés bu mag ci wàllu làmb mu war a yemook dimanche 15 mai 2022 ci stadium Iba Mar Diop drapeau du ministre des sports monsieur Matar Ba les sages daal di ne tegal nañu xale yi 5 millions de francais CFA ci kaw table bi ci trois catégories yu bokk waaye yemuñu ci dañu ne indil nag dio de choc bi Momo Ngom ak Mbayang Loum billet amateur yi 3000 francs la loge 5000 francs CFA kon mbokk yi mi ngi noonu ginnaaw bu ñu jógewee ci drapeau du chef de l'État ñu war ko raxasaat fii ci Ndakaaru ak le drapeau du ministre Matar Ba ñu war cee ànd nag ak les sages de la lutte du Sénégal